dal leen ak jàmm yéen ñi safoo site internet bi di RTV Dakar li a fës kii di Pape Alé Niang njiital Dakar matin daal dina koy yëkkati rek ñeel candidature Ousmane Sonko parce que nekk nañ ci contexte politique boo xamante rek bu doy walla li nga xamante ne moom mooy respect ñeel processus électoral bi nag yaakaaroon ci kenn ku dul kii di Ousmane Sonko yaakaar bu rëy bi nga xamante rek daal koy am jëm euh, ci moom moom nag la mu daal di eh, xam ne rek moo di ne depuis ba nekk ni environnement politique bu Sénégal dafa mel ni rek euh, dafa daal di nekk ci ab mobilisation bu doy waar dara wundul ko rek lu dul xeex candidature kii di Ousmane Sonko naam nag ndëgg sërëx bu nekk rek daal di nañ ko koy lalaat bañ mu bokk ci jongante présidentielle dama ci atuma 2024 waaye démocratie nag ci jëmi boppam dafa basé ci ay fondement yoo xamante ne rek yu la ba tey rek kii di Pape Alé Niang la mu nag xamne ki di Ousmane Sonko jamono ji na dem rek ci li nga xamantene rek mom moy bi principal bi nga xamantene yag na ko incarner mu ñal ab développement way nak lepp dina leer ndax citoyen ci seen jëmmi bopam nak ñom ñoko ko candidature am ba rek la mu di xam ne nee na Sénégal ci jëmmi bopam ma ngay waaj togg élection présidentielle do ma ci atum 2024 campagne Sonko nak war na nek campagne bo xamantene bu mucc ayb la way lepp rek ci démocratie nak lañ ko dal di tek kon nak mbir mi pour mu am rek faw ñuy doorandoor di way nak Eh, fexe rek ba kii di Ousmane Sonko mën a am ndam niki eh, mille vingt 2024 di kat bi nga xamante ne kii di Pape daal dina ko yëkkati moom njiital eh, Dakar Matin jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen